asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam da leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajafal nañ leen siyaare nañ leen ñu ngi jaajëfal ñëpp bàyyiwun kenn tey nag ñu dellu siwaat ci jàmm lu ko waay jënd jar na ko ñi ko xamul dañ koo xamul mais buñ ko xamoon a koo jar. dara nag day am ñu naan noo lii du dara lii mën nañ koo lijjanti lii mën nañ koo maanaam daal di ci di ko ñàkkal fayda daal ba loolu tey nag doon dara ndax loolu gis nañ ko fi gisati ko ay nit ñoo xam dañuy am ngëm-ngëm nekk ci dara ñu naan leen ah ci lii ñu nekk de mooy lool du dem fenn ndax lii moom daanaka mooy lool voilà ba loolu xëy doon dara nag léegi bu ko defee nag ñoom ñooy walbatiku waan naan waaw voilà loolu je pense que li tax ma bëgg koo wax mooy dangay xool tey réew yi nga xam ne ni ay réew ñàkk jàmm lañu woon nga xam ne ci fitna ci xeex guddi ak bëccëg nga xam ne daanaka mën naa ne foofu dangay dañoo dem ba institution yi daanaka amatul foofu ci réew yooyu boo déggee yenn artistes yi doon way ay apartheid nga xam ne Afrique Sud jamono yooyu ah, ngay dégg ay Rwanda voilà ñooñu nga xam ne tey euh, nekk nañ ci ñàkk jàmm lu yàgg voilà moo tax bi ñu demee ba am jàmm nag dañoo xam ne nag jàmm lu ko waay jënd jakkate jar na ko ku leen bëggoon yóbbuwaat foofu noonu waaw dee sax leen koy gënal dema nekkaat ci la ndax xam na li jàmm di jar xam nañ li jàmm neex jàmm jàmmay tax yow mi nga xam ne ni dangaa am parole nit ñi di la déglu di la respecté di la déglu di la bàyyi xel lan moo ko waral jàmm ji jàmm dina tax lépp loo sol rek nit ñi dinañ ko gis montre boo takk dinañ ko gis dàll boo sol dinañ ko gis xaaj boo am sa xel dana ci dal jàmm ko waral kon jàmm dina tax nga mën a am tranquille pour mën a tabax sa kër jàmm dina tax nga mën a xëy di wàcc jàmm dina tax ngay mën di lekk di naan mais saa soo noppee am jàmm loolu yëpp si ni saye te loolu yaakaar naa ni eh, bu ñu ci dara génnee li nga xam ne loolu loolu lañ war a def moo di ñun ñëpp dañoo war a xam ni réew mi dañoo war a itteel mais pas ay privilège ak ya ci aju yow daal da jàpp ne maanaam su sa mbir baaxee rek saye jàpp nga ni yow maanaam loolu noonu mooy li nga xam ne ni ci la jàmm tënku waaw dëgg la de ci la tënku de waaye bul fàtte ni am na ñoo xam ne tey jii yéen lañuy ñuy déglu ci yéen lañuy ñu roy ci yéen la ñu euh, tibbe kon nag yaakaar naa ne bu fekkee da ngeen a nekk ay nit yoo xam ne nit ñi dañ leen di bàyyi xel bu ngeen waxee ñu déglu leen lu ngeen di def ñu leen ci roy kan nañuy gën di ñaan jàmm te doxal li nga xam ne ni moom lañ ñëpp bëgg a gis mu nekk loo xam ne nii total maanaam équilibre lay doon comme suñu borom rek ni mu taxawale àdduna bi nga xam dañ koo war a roy ci loolu ndax àdduna bi dafa def équilibre voilà ndax waxoon naa ko fi bu géej gi jékki-jékki woon ne man fi ma nekk daa xat waaw dama bëgg ku ma dolliwaat voilà kan bu boobaa bu bëggee dugg si ci biir population bi ngir dolleekuwaat waaye gis nga ko équilibre tax suñu borom tey ji fa mu ko yemloo mu yem fa ak leneen ak leneen ak leneen lu baree baree bari kenn ku ci nekk fa nga war a yem da faa war a yem kenn ku nekk nga bàyyi ko mu yem fa mu war a loolu mooy tax jàmm ci loolu mooy tax loo bëgg a def def ko ñu ngi leen di siyaar fii ci Fall 94 Walf Sénégal di leen ñëwaat